jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 euh, seen émission pencum réew mi euh, ñu dellu am mbégte dellu si si ak yéen comme nañ ko baaxoo di ànd ak yéen bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diawa Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité Ngouda Dionne Ngouda jonn mu nekk mu bokk ci PDS nekk membre comité directeur nekk adjoint Mayoro Faye Euh, nekk tamit euh, candidat euh, wàllu Sénégal ci fi nga xam ne moom mooy commune bu Golf Sud ci département bu Géejawaay Ngouda réew mi FM ma ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou Khad di nuyu l'ensemble de la coalition wàllu Sénégal di ci tàmbale ki nga xam ne mooy la personne morale le leader moral le leader charismatique ancien président de la République et secrétaire général national. du parti démocratique sénégalais maître Abdoulaye Wade ñu ngi koy nuyu te di ñaan yàlla bàyyi ko ay atti atti encore ci sunu kanam di nuyu le frère euh, de la stratégie de l'organisation au niveau du parti démocratique sénégalais le frère Meïssa Karim Wade di ko nga xam ne au-delà du leader charismatique et le leader moral en toutes circonstances du Parti démocratique sénégalais et de la coalition Wallou-Sénégal. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît en Karim Meïssa Wade le leader politique de la coalition et en même temps le leader du Parti démocratique sénégalais. Nous lui souhaitons tout ce qu'il de meilleur dans cette année nouvelle 2022. Nous saluons l'ensemble des militantes et militants du Parti démocratique sénégalais et la coalition Wallou-Sénégal. Nous saluons aussi l'ensemble des populations de Golfe Sud pour qui nous nourrissons une ambition sans limite et nous tout ce qu'il y a de dans cette année nouvelle 2022. Euh, jërëjëf euh, Ngouda euh, jonn yow nga nekk candidat wàllu Sénégal fi nga xam ne mooy Golf Sud nga bokk ci parti bii di PDS suñu laaj bu njëkk rek mooy li nga xam ne tey moom mooy campagne élection locale yi gis nañ ne bëri na ci Ndakaaru ak ci biir réew mi foo xam ne nemmeeku nañ fa ay violence yow en tant que candidat wàllu Sénégal violence boobu lan moo ci sa xalaat waaw defe naa yéen ay journaliste ngeen bu ngeen seetloo violence wane nañ ko fu ne wane nañ ko Thiès wane nañ ko un tout petit peu rek ci Géejawaay wane nañ ko Ndakaaru Parcelles Assainies fu ne Mbuur fu ne waaye defe naa bu amee Géejawaay it wax dëgg amut noonu solo Golfe Sud moom déggu leen fa euh, violence ndax ñun ñu nekk candidat Golfe Sud avant ñuy nekk candidat dañoo xamante woon nekkoon ci mairie ba man nekk na maa ngi nekk conseiller municipal au niveau de la mairie de Golf Sud depuis sept ans donc te boo xoolee ñaar ñi wala ñett ñi nga xam ne au delà man ñoo nekk ay candidat ci Golf Sud ñoom it ay conseillers lañu. donc ñu yàgg tasante politique nag euh, quand même am na fu mu mën a yem. mënta yàq yenn relation sociale yi nga xam ne yàgg nañ ko amante Euh, nga nekk ci coalition wàllu Sénégal bu dee violence am na ci Sénégal gi yëpp de manière général lan nga jàpp ne moo war a waral violence boobu ak tamit lan moo fi jar daw bay daanu ak nan la ñuy def ba li jot a néew ñu fexe ba rectifier le tir. niñ koy rectifier dafa yomb ndax ñun ñun en tout cas wàllu Sénégal defe naa dégg nee nga cité nga ay dëkk yu bëri waaye déggoo ci wàllu Sénégal. ndax wàllu Sénégal de dafa am benn présentation bu ma doon def ci deux s avant même euh, ñuy débuter campagne ma nee leen wàllu Sénégal boo xoolee seen njiit yi nga xam ne ñii tàlluñu sax xee xam nga lu ñu bëgg suqaliwaat Sénégal jëlaat Sénégal teggaat ko ci anam yoo xam ne moom la réew mi nga xam ne dañ ko euh, fonk ci àdduna fonk ko ci Afrique def ko comme leader en Afrique exemple en Afrique ñun ñi nga xam ne ñoo yoroon Sénégal changer itinéraire ba jox ko beneen jëmm boo xam ne ñëpp ko naw ñun duñu ñëw du dugg ci ay mbirum violence tàlluñu ko xam nga lu ñu bëgg wax ak sénégalais yi won leen lan la ñu namm defar ci seen gox yi muy Mbour muy Ziguinchor muy Saint-Louis ak Mayoro fay muy euh, Diourbel ak sunu Cheikh Bara Dolly Mbacké mi nga xam ne mooy euh, président groupe parlementaire liberté et démocratie fépp foo mën a dem ci dëkku Sénégal yi lu ñu nam mooy tegaat réew mi tegaat gox yi ci anam yoo xam ne ku leen gis naw leen moo tax euh, xeex moom mooy ko amul programme xeex mooy koo xam ne xamoo nan nga mën a waxe gis nga koo gis muy xeex gis nga nit bu saaga wala sax mu mbéj la am na noo xam ne boo ko tontoo moom dina rus boo moytu dina la jéggulu balaa muy dem hmm. koo gis muy xeex rek daa xamut dara te mënta wax. léegi euh, cadre unitaire de l'islam. Mm. ñoom ñuy dox lu jëm ci wàllum jàmm euh, teg benn charte charte boobu am na candidat yoo xam ne jot nañu ko signé yow en tant que leader wàllu Sénégal bokk ci PDS lan mooy sa position euh, ci charte boobu. man sama position leer na defe naa wax naa ko waxaat ko mën affaire boobu amuluma solo signé ko bañ ka bu dee signé rek xam nga signé wax dëgg du dara moom toute façon man xam naa ne waa parti démocratique sénégalais buñ leen joxee dinañu signé ndax lu leen wóor mooy du signé mooy tax jàmm am wala bañ am xam nga lan mooy tax jàmm am ku ne respecté sa moroom ku ne xam ne lu ne dafa am ay loi ak ay règlement yu ko tëral bu ñu fonkee loolu rek ku ne ñu jox ko àqam jàmm am buñ ñu joxe aw kayit nag pour signé ndax kayit dong la amul leen lu mu mën a indi ci jàmm ji bu ñu joxee aw kayit nag dañ koy signé man du ku ma jox kayit ne dañuy signé jàmm ma signé ndax xam naa ñi koy signé ñi ci ëpp ñooy indi xeex yi ci mbedd mi mbuur boobu nga wax Ziguinchor bi nga wax Thiès bi nga wax Parcelles Assainies yoof ak feneen ñan ñoo fi xeex ak meddina ñi ko signé gis naa ci ñoo xam ne sax ñoo indi xeex yi ba indi ay jaas ñoo njëkk a signé waaye de kërti kërti yi ci mbedd yi sànnante xeer yi génn ay jaase ñoo ñu signé ñoo ko kii gisagu leen kenn ci ñu signé kuy xeex. d'accord mais euh, Ngouda Dione yéen euh, wàllu Sénégal dafa mel ni euh, da ngeen a yéex a dugg ci campagne bi ci mel surtout ville de ville de Dakar président Doudou Wade déggoon naa tamit fan yi benn journal bind ne Karim Wade yónneewul yónneewul xaalis. beneen bi tamit wàllu Sénégal gis nañ ne bëri na seen liste yu ñu rejeté yoo xam ne defu leen yenn euh, comme yeneen candidats yi ñoom ni ñu taxawee contesté yéen contesté wu leen euh, loolu lan moo ko a contesté lan ci comme par exemple liste yi ñu rejeté waaw comme yeneen candidat yenn coalition yi seen liste yi ñu rejeté si yenn euh, communes yi waaw dañoo gis na ñoom dañu contesté dem ay cours suprême ak yooyu waaw ndax au niveau de wallu Sénégal seen liste yi ñu rejeté fan ngeen lan yan contestation ngeen def suñu ñaari liste yi am solo mu nekkoon je pense département de Thiès ak ak une partie à Saint-Louis fépp fu mu am contesté nañu dem nañ cour d'appel cour d'appel jox nañu dëgg ba list yooyu rétablir nañ leen mm-hmm. donc euh, euh, ci affaire defe naa am na question bi mu waaw euh, non yéexaayu dugg campagne u Doudou Wade ak euh, mbirum Karim yónnee na financement ak déet xam nga ñuy wax loolu encore xam nga construire une image moom la yenn journaliste yi def waaw da nga bëgg a wax ne Karim Wade nekk fële Doha même bu yónneewul woon parti démocratique c'est un grand parti comme le parti démocratique sénégalais je rappelle que le parti démocratique sénégalais son secrétaire général national est maître Abdoulaye Wade je rappelle aussi que la coalition wàllu Sénégal bi nga xam ne moom lu Doudou Wade jiitewul parti démocratique sénégalais à Dakar Doudou Wade lu mu jiite mooy coalition wallu Sénégal à Dakar. te coalition mooy PDS rek. coalition seen logo am na ay non non am na ay kilifa yu am doole yu nekk ci wàllu Sénégal à Dakar quand même mbay Mbaye Dakar la nekk na ngeen xam loolu. mooy base non de, dama lay won ne rek gis nga Abdoul Mbaye dong personnalité Abdoul Mbaye dong doy na doy na ci joxe une crédibilité à une structure à une institution Abdoul mbay nga Dakar euh, euh, euh, kii Sarr mi ngi Dakar euh, Mamadou Lamine Diallo mi ngi fi euh, buuba Diop mi ngi fi kilifa yu toll noonu nekk dakaar jiite ay parti ngeen ne parti boobu daal mënta mënta wut financement coalition boobu financement mën na ko të duuduwaat dong duuduwaat dong mën naa fexe ba am financement yi xanaa nag da ngeen a xamul kan mooy du duuduwaat nag duuduwaat daa yàgg liggéey avant même mooy dugg ci politique ay institution yu bëri ay structure privée yu bëri ay entreprise yu bëri jiite na ko ba pare nekk pendant douze ans président du groupe parlementaire du parti démocratique sénégalais jiite ay mbir yu bëri nekk un un un un kii international fu ne ci àdduna ñu ko fiy woo pour muy conseiller ay institution ak ay structure waaw ku mel noonu ngeen bëgg a wax ne kooku même bu ko nit dimbalewul mënta financer boppam xam nga loolu mënta ne li nit ñi di jaawale mooy waaj tempi tempi assurer ses arrières pour mën a dugg ci campagne bu baax. moom la Doudou Wade def Doudou Wade xam ngeen lan la Doudou Wade lébbu la de Doudou Wade lébbu la. ci lébbu la c'est-à-dire ci wàllu ndeyam li ma bëgg wax foofu mooy. du doon avant muy dugg ci campagne yi dafa dugg ruq-ruqaan yi dem ci kilifa yi dem ci ay mbokkam dem ci am di jàmmam Doudou Wade dafa bokk ci ay association yu bëri du ski euh, social ñooñu mu dem seeti leen ay xaritam ñu mu nekkandoo woon biir Dakar ñu nekk ay xele di defandoo ay mbir yu bëri mu dem giseeg ñooñu dafa préparer terrain bi ba nga xam ne wóor na ko ni ñii nga xam ne bu mu nekkee xale bu mu nekkee mag ñoom la doon àndal di def ay mbir di aider population yi di yëngatu ci ay goxam ñooñu la doon seet di seet kilifa yi yu ndakaar yi di seet sëriñ si loolu ci ah, loolu la ah, Doudou Wade nekkoon euh, mais nekkul nit bu génnee di cow ci tele bi rek mu ngi liggéey Doudou Wade dafa liggéey ba assurer un un un travail de fond door a génn nag ne day. campagne mais xam nga tey euh, Ngouda Dionne. boo xoolee tey par exemple tey dakaar hmm. dafa mel ni yéen PDS seen campagne bu njëkk na ngeen doon PDS doon campagne wala ngeen doon préparer ay élections. boo xoolee ci ndakaaru rek rarement presque nga gis sax panneau boo xamante ni da nga fa gis PDS wala dara. <laughs> maanaam maanaam yéen engouement bi PDS doon àndal. ci campagne électorale. Hmm. loolu moom dañu gis benn PDS boo xam ne dafa mel ni dafa nooy daal dafa dafa glacé benn PDS boo mel ni dafa mel ni élection locale yi euh, dafa dese yitteel ñi nga xam ne ñooy waa PDS. xam nga am na aussi loo xam ne euh, manque de réalisme la man mosuma gis nit koo xam ne de dafa jóge ci kii mu am benn oto bu ko xaw a mbëkk mu am tuuti lu xawoon euh, foxo ci ci tànk wi. mu dem faj ko ngeen ne nu mu doon dawe noonu lay dawe te en en même temps élection yi bokkuñu est-ce que mos ngeen a gis ab élection boo xam ne élection locale boo xam ne nii la mel mosta am PDS lu mu subir en huit ans lu ne def nañ ko ko lu ne ci noo ko mën a xalaate nag physique financière euh, euh, euh, linguistique xaw ma nan laa ko mën a PDS lu mu daj ba PDS mën a nekk fii ñuy wax ndax PDS day gañe ba gañewul wax da ab kàngam la ponkal ngeen da waxal PDS il faut nag ngeen nangu na ponkal la li PDS daj lu mu subir ku ko subiroon doo ñu waxate ay mbiram te PDS ngi nii taxaw te lu ne def nañ ko ko nag lu ne lu ne def nañ ko ko néew ngeen doole bu baax a baax naa non néew ñu doole xam nga euh, toujours may rappeler loo xam ne benn journaliste euh, kii ja te mos naa nekk TFM. Euh, mooy analyse politique bi. mooy analyse politique ja xam nga daf leen wax loo xam ne xam nga nit koo xam ne. mooy yoroja mm. xam nga nit koo xam ne amoo doole. wala amoo i mbokk wala amoo ku la jàppale ci kër yi doo boo yëngatuwul du sotti di yuuxu wax lu ne waaye koo xam ne xam ne ni maam yaa nga fa. nijaay yaa nga fa jarbaat yaa nga fa am di jàmm yaa nga fa xarit yi nga xam ne daa njëkk daa yàgg amanteeg ñoom jëflanteeg ñoom ñu ngi ci biir kër yi kooku yenn yuuxu yi jarul mu koy kii di sonnal boppam na xaar ba yëf xaw a jeex yi ay booru fin de sem dernière semaine ngeen gis mbir bu mu rëy parce que li tax ma wax la ko ñi yuuxu fii yëpp ngeen di kii mënuñu la wax kër gee bu ma fa demee samay nit a fa nekk kër gee bu ma PDS kër gu ne ay nit a ma nga fa nekk. da ngaa yaakaar yeneen coalition yi dañuy xumbal rek. dañuy xumbal kay ko kay moom xam nga ne sax dañuy xumbal. ndax ko bu ma àndeek ñoom koo ma ci tànnal ma ne ko kaay ñu dem. wala ko ci àndal duudu wat bu ko nee kaay ñu dem duudu wat bu duggee ci kër dina jàmmante ñu ne waaw duudu yow gëj nañ li gis et cetera et man mii sax ci biir golfe sud bii am na ñoo xam ne ñoom ngay gis ñu gën a fës mais bu ma duggee ci kër gi ñooñu nekk ci biir kër gi man la ñuy gën a xam ko ñooñu te ci bitti nag xamuñu wu ma xàmmee wuñ ma comme niñ ko xàmmee mais ci biir kër yi te loolu mooy PDS ah. caractéristique fondamentale u PDS mooy ñi koy woteel ñi nga xam ne qu'il pleut, qu'il neige, qu'il gèle, ils sont PDS et voteront PDS ñoo ci biir kër yi. ñëw ci Golf Sud xam naa dina jafel lool si yow nga hmm. gañe Lat Diop Golf Sud. Lat Lat Diop de du candidat ba ma koy gagné. ki may jéem a gagné du Lat Diop de. ki may jéem a gagné ndax Lat Diop ab représentant la rek koo xam ne sax mën naa dem ba ci yegg ñu ñu ñu ñu ñu. ñu rocc ko mais mooy benn boo ko moom laa lay wax. man booy may xeex Benno Bokk Yaakaar laay xeexal du Lat Diop. amul une personne mais moo fay candidat Benno Bokk Yaakaar Golf Sud. du candidat dañ ko faa teg. c'est-à-dire yow dañ la faa teg. man avant may nekk candidat avant may nekk candidat ñee euh, ci kaw c'est-à-dire Parti démocratique sénégalais ak la coalition Wallu Sénégal ont entériné une décision de base Lat Diop personne si c'était la base qu'on avait suivie Lat Diop na sera pas candidat parce que la la la base ne l'a pas désigné comme candidat moo tax ma ne dañ ko fa teg xam nga candidat bu ñu fa teg bokkul ak candidat boo xam ne base bi moo ko choisir dana ñëw si dana ñëw ci euh, léegi yow euh, leneen li ma bëgg euh, waxaat tamit tey mm-hmm. moom mooy yéen mi nga xam ne tey yenee wallu Sénégal mm-hmm. surtout ci ville bu Ndakaaru ndax enjeu def daf cee bëri président Doudou Wade maanaam yéen vraiment ci ville de Dakar tey est-ce que seen change vraiment euh, Ngouda Dione seen chance yéen wàllu Sénégal pour ngeen gagné ville de Dakar ak président Doudou Wade est-ce que nekk na loo xam ne lu yomb la war a da ngeen a bëgg dem élection pour dem élection rek. ah kon yow da nga considéré ne candidature Doudou Wade dem élection pour waaw moom laa lay ah. xam nga am na lu tax nga laaj ko ah. certainement no mais c'est un travail interne ou peut-être ab kii de journaliste bi nga def ba am boobu conclusion ba mën koo laaj saa woo laajee dara dañ ci travailler donc li ma bëgg a wax mooy élection municipale wala élection bu mënta doon man defe naa nag en deux mille vingt deux war nañu nag jóg ne élection mooy lan ak quel est l'objectif élection mooy ñu seet koo xam ne mën na tax gox bi soppeeku ñu jox ko ko koo xam ne am na une euh, capacité intellectuel et organisationnel bu mën a tax loolu ñuy mébét ci sunu gox mën a am te yaakaar naa ne candidat yëpp nag laa la wax de yu ndakaaru amul kenn koo xam ne egg nga duuduwaat ci oom bu dee rekk capacité la ñuy wax organisationnel capacité financière capacité de gestion institutionnelle bu dee loolu moo tax ay nit war a jël kenn ci ñoom nga xam ne gënu leen mais dañu ne rek système boo gis il faut mu am une organisation et un, processus de fonctionnement kooku ñi nekk candidat ville de Dakar amul ci kenn kenn laa la wax ku ci egg duuduwat ci oom amul lu mu mën mënuñu ko lu mu xam kenn ci ñoom xamu ko wax ma ci kenn mais ki ci euh, euh, koo xam ne mënoon nga xalaat na sax mu mën a méngoog duuduwat peut-être mooy le ministre Diouf Sarr eggul duuduwat ci oom kon ci domaine boo ko mën xool. kon léegi d'accord yow jàpp nga ne. yéen wàllu Sénégal da ngeen di gagné ville de Dakar loolu nga. jàpp non waxuma dañ koy gagné. non du man maay voté. non jàpp te man sax bokkuma Dakar géejewaay laa que jàpp nga ne Doudou Wade mën naa gagné ville de Dakar. te ma jàpp ni bu fekkee li ma wax moo tax nit ñi de voté. voter pour sa gox suqaliku voter pour développement pour voter pour constituer pour consolider des valeurs de culture et de civilisation pour consolider des valeurs de culture et de civilisation gisuma ci biir candidat yi kenn koo xam ne rek mën nga euh, ki euh, jongante ak Doudou Wade amu ci léegi yéen euh, c'est le candidat vraiment idéal pour mën a atteindre ces objectifs dont j'ai parlé la consolidation de nos valeurs de civilisation et de culture consolider la cohésion culturelle économique de Dakar, consolider vraiment la solidarité le comment dirais-je encore comme ni ñu koy wax Sénégal dëkku teraanga la pour consolider ces aspects-là on ne peut pas trouver aujourd'hui ci ñi nga xam ne ñoo nekk candidat quelqu'un qui peut vraiment euh, mën mën a euh, jongante ak Doudou Wade ndax es aspect boo ci xool daf ko remplir ba bu mat sëkk man ci base yooyu laay waxee waa ndakaaru dama ne bu leen pour mode mode du tax ab réew dem fenn vote leen ngir koo xam ne dayoom jaar-jaaram motte na ko d'accord dayoo ak jaar-jaaru duudwat motte na mën a jiitu euh, jiite ndakaaru jërëjëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu euh, réew mi fm seen émission pencum réew mi tey ñu invité Ngouda Dione mu nekk candidat wàllu Sénégal fi nga xam ne mooy Golf Sud mais euh, Ngouda jonn yéen yéen waa wallu Sénégal euh, dafa mel ni yéen surtout yéen mënu leen a dem ay élection euh, sans ngeen tudd ci turu Ablaye Wade dafa mel ni Ablaye Wade est-ce que jëlu leen turu Ablaye wadd ak Karim di ko campagne te ñoom ñëwuñu si campagne bi beneen bi mooy wallu Sénégal sax am na ñuy wax ne wàllu Sénégal ñoom dañoo desee gëm seen bopp ndax buñ gëmoon seen bopp bu ñu tegee benn coalition dañuy dem wuti ay couleur couleur yoo xam ne tey couleurs yu neutre lay doon ngeen créer seen couleuru coalition waaye yéen da ngeen dem jël couleuru pedes logo PDS xam ne couleuru PDS ak logo bi euh, ñëpp xam nañ ko presque maire yeeg paa yeeg xale yi ñëpp dañoo judd fekk ko fi ngeen jël loolu pour pour pour seen visibilité lan moo tax demu leen ngeen tànnoon seen couleur bopp bu doon tey taxaw ngeen dëgg-dëgg euh, jàpp na yéen gëm ngeen seen bopp <laughs> man nag dama bëgg a jombi xam nga yéen li ngeen ñuy laaj mooy nit koo xam ne dafa yéeg ci aw euh, mango yéeg ba ca kaw gis mango bu baax mu bañ koo witt xaar ba wàcc ci suuf di ko di sànni ne pour mu waaw secrétaire général national du parti démocratique Sénégal nu mu tudd. Ah, maître Ablaye Wade. maître Ablaye Wade la tudd. d'accord ngeen noonu la tudd waaye ñun nag ñu ne am nañu un secrétaire général waaye dañ koy bàyyi fee. kon kay li ngeen mënoon a xeex wala li ngeen mënoon a wax Ablaye Wade nekkatul secrétaire général national. wàllu Sénégal. non mais wàllu Sénégal que yow yaa wax léegi wàllu Sénégal ki ko jiite mooy PDS yaa ko wax non. waaw waaw ku jiite wàllu Sénégal euh, euh, PDS mu jiite wallu Sénégal. muy secrétaire général national du parti démocratique Sénégal te ñoom ñëpp nangul nañ ko ko Abdoul Mbaye nangu na ko. Mamadou Lamine Diallo nangu na ko. kii sax kon kay kon a dem ci yoon rek. comme jël ah, nañ logo bi non du seet xool nga logo yeneen parti won ma yeewu askan wi ba ba buñ la wanee logoom kan ngay gis. kan moo ci gën non dama lay laaj rek ndax yeewu askan wi. ay couleur actuellement couleuru kan la. ñoom boo xoolee euh, taxawu Sénégal ak euh, PUR ak euh, PASTEF presque seen couleur yi lañuy ñuy jaxase. <laughs> Ah, loolu bu la neexee waaye Sénégal yi yëpp da xam ne ñu couleur bu gën a fës ñaar yu gën a fës mooy bu Pastef ak bu tuuti taxawu ndakaaru mu xaw ci yarax waaye loolu mooy man Sénégalais yi quelque fois bu ñuy analyser le par xam naa am na ñoo xam ne ils une peur bleue du parti démocratique sénégalais ndax li ñëpp de def bu ko parti démocratique sénégalais defee nit ñi am lu ñu tudd man dama mos a gis benn parti wala coalition buy dem élection ne du tuddu secrétaire général nationale man dama suma koo dégg ñu bëgg koo def ñu ñu bëgg ne Sénégal Euh, parti démocratique sénégalais di dem élection teg fële son secrétaire général national loolu mën naa nekk loolu amul fen mais lan moo tax amul benn parti bu koy def jëlu leen bañeero maanaam ngeen ne PDS mooy dem élection benn yoon rek comme jël ngeen logo beeg yëpp. ñeneen ñi dañ koo deful coalition. coalition waa coalition bi ñooy toog ne lan mooy nekk sunu logo ak lan mooy nekk sunu bannière la coalition même bu ko neexee kenn ci ñoom. bu amee bañeeram am ak kii lan mooy élection fës bu ñu xamee ni kii moo gën a fës bu leen neexee ñoom ñu jël bannière boobu jiite ko ñoom ñooy tànn non ñoom ñoo tànn dañoo tànn bannière parti démocratique sénégalais pour seen visibilité pour seen visibilité ah élection élection lu tax ngay def ay kii nga dem ci panneau yi tafi euh, affiché say kii du pour visibilité yow nga am déjà koo xam ne yàlla moo ko jox visibilité nga bàyyi ko fa loolu mooy comme la Abdou Diouf doon wax je ne couperai pas la branche sur laquelle je suis assis ñun du ñu dagg branche bi nga xam ne ci la ñu yéeg branche boobu làqatu wuñu c'est naturel que nit daa war a wut lu koy dëgëral lu ñuy dëgëral mooy maître Abdoulaye Wade kenn mënta fexe ñu bàyyi ko ginnaaw mais seen campagne bi yëpp maître Abdoulaye Wade la suba di matin sunu campagne de na loolu nga wax mën a nekk que maître non moo mun leen def déclaration bu ngeen def yéen waa wàllu Sénégal force su ngeen dugal ci maître Ablaye Wade. yow euh, déglu nga sunu déclaration ñun ñii wala déglu nga bu dugub en tout cas ñun. à Guédiawaye ci sunu déclaration amu ci fenn fu ñu mos a tudd. surtout seen mbokk yi nekk Touba ñoom moom. Ablaye non man waaw nee naa la Ablaye mooy seen Ablaye mooy mooy seen kii kay. et loolu lu lu leen ci metti d'accord. Euh, jërëjëf. Euh, Abdoulaye Abdoulaye Wade mooy sunu sunu bànqaas bi nga xam ne moo gën a dëgër waaye nit nu muy jëlee loo xam ne moo baax ci moom mu koy sànni. waaw non xam nga tey xanaa ñàkk am rationalité te ñun am nañu rationalité bu doy. waaw non mais xam nga tey li ma bëgg a wax foofu mooy. bu dee ay candidat ngeen. amaana ñëpp defu ko ci wàllu Sénégal mais bu ngeen di campagne ngeen dem ngeen wax seen programme. man sama déet. déet man mii man mii sama programme mi ngi Facebook. mun nga ko liir yow bu la jarale mi ngi Facebook. boo demee sama kii partout sama programme nga fa ta amoo gisoo fi fenn Ablaye Wade bu leen waxati ñun wax Ablaye wat mooy sunu njiit moo tax ñu koy tu mais programme dama lay wax sunu programme premier élément dañu ne nous allons dañuy construire à golf Sud vers vers la rivière li ñuy wax la Silicon Valley cette Silicon Valley dañu seetlu ni boo demee Colobane boo demee HLM di nga gis ay jeunes yoo xam ne dañoo am ay table di defar ay portable di def lu am solo ci mbirum ordinateur nous allons créer des maîtres des guides pour que c'est c'est c'est cette intelligence en gestation ci jeunes yooyu ñu mën ko valoriser que et nous espérons dans l'encadrement bu ñu war a def ci Silicon Valley i ay at boo moytul dinañu créer wala dinañu générer ay jeunes yu mën a defar ordinateur deux nous allons créer le centre. programme lay wax sama programme laay wax nii. pour dégg ma ne woon ne amu leen programme ma bëgg la woon ne am nañ ko. non d'accord dinaa amul kenn ci ñun ko amul yow seetaan nga. de façon très kii bu Cheikh Dieng. d'accord à Pikine bu muy présente. du wat bërki démb. waaw d'accord dina ñëw ci programme euh, yow sa sa programme mais dama ne li ma bëggoon a foofu rek mooy même yéen bu ngeen taxawee ngeen wax seen programme en tant que candidat Wallu Sénégal. fa ngeen koy tëjee mooy ay message lii Ablaye Wade Ablaye Wade nangam Ablaye Wade. waaw dama lay laaj ndax sama bos gis nga ko. ndax gis nga loolu ngay wax. léegi gis ma ko ci kan nga ko gis si programme bi. mais dama ne bu ngeen di campagne bu ngeen di def seen programme bu ngeen ubbi Ablaye di ubbee teg ci programme tëjee ko Ablaye Wade. ak wala Karim Wade buñ ko deful woon de buñ ko deful woon. waaw eh, eh, koo xam ne yow ubbee woo Ablaye Wade. tëjewoo Ablaye waat wala man mii ma dëkk Golf Sud nuyuwuma waa Golf Sud tëjewuma waa Golf Sud man kenn du xam lu ma doon léegi Ablaye Wade mooy sa leader yow xanaa da ngay rus wax mbirum Ablaye Wade bu fekkee ñemewoo koo ubbee ñeme euh, nangoo koo tëje de dañuy ne nañ tàmbale euh, ab julit sax day ne nañ tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim tëje alhamdulilahi rabbil alamin waaw nit nu muy bañee lu mu ne ñun loolu la ñu nekk Ablaye Wade mooy sunu bismillahi rahmaani rahim mooy sunu alhamdulilahi rabbil alamin waaw d'accord léegi Ngouda yéen euh, yéen waa PDS hmm. Euh, coalition wàllu moom tur wee fi nekk ndax xam naa ne yéen a. wut loolu mooy. Euh, yéen wut seenu tur yéen waa PDS. waaw coalition bi turu coalition bi. waaw yéenay wut seenu tur maanaam. yéen ñan xam nga comprendre ma yéenay. maanaam PDS da nga ñeneen yeneen membre coalition yi bokkuñu ñu tur wi. waaw xaaral ma li ma bëgg a expliquer mooy. waaw yéen PDS. Hmm. même bu dul élection yi élection législative yu jaaloo ak yëpp. Hmm. waaye nañ wax si yii nii yii. Hmm. yéen PDS. képp ku ngeen àndal. presque moom. ay second couteau lay nekk maanaam ay second rôle lay joué yéen PDS parce que lépp yéen a koy ngardaajoo fi nga xamante ni tey mooy grande ville yëpp dangeen di fexe ba teg fa seeni nit bu ngeen fa ku nanguut ngeen teg fa seeni nit sax amaana mën ngeen a ko ak moom euh, jël tamit seenu turu coalition yéen a koy créer wala yéen ci koo créer tamit il faut ngeen d' accord ci à cent pour cent doo ko valider beneen bi seen i seen i tur seen i ngeen di jël seen logo Euh, seen bannière euh, siège soci euh, quartier général bi sax seen siège su PDS lay nekk PDS lay nekk maanaam li ma bëgg a sax mooy PDS yi yéen coalition bi pour coalition la mais PDS la. waa léegi dama bëgg wax ne lool lu lu lu muy wundu le fait que foo dem PDS moo fi ne. les les kii boo suivroon processus de désignation de candidats nan la woon du dañu ne ñu ne te du du awul wax nii rek te wëri dañ ko jëfee en tout cas man fi ma nekk mooy département de Guédiawaye ville de Guédiawaye dañu ne au niveau communal tout d'abord ce qu'on appelle l'assemblée générale de la coalition Wallu Sénégal ñu woote ko bu ñu wootee assemblée générale de la coalition Wallu Sénégal yéen journalistes yi kay man defe naa au lieu ngeen di to euh, topp ay préjugés wala ay préétablis vérifier sur le terrain. non non man la man damay ñëw. boo demee euh, par exemple Golf Sud bu ñu defee assemblée générale de la coalition wàllu Sénégal pour désigner la tête de liste boo fa demoon quatre-vingt-dix pour cent ce sont des militants du parti démocratique sénégalais waaw comme assemblée générale bi mooy désigner te dañu ne dañ ñu jox circulaire numéro un wax la convocation euh, c'est-à-dire la le CNP mooy kiy coordonner euh, les élections dirigé par Mamadou Lamine Diallo di Tekki déjà yow le coordonnateur de la coalition Wallu Sénégal n'est pas le PDS c'est Mamadou Lamine Diallo il faut ngeen xam loolu Mamadou Lamine Diallo def un euh, une circulaire ne na ngeen convoquer une assemblée générale de la coalition Wallu te amul des candidatures préétablies c'est dans la salle que chacun se présente dans la salle moo noonu ngeen ko vérifier loolu dans la salle j'ai déclaré ma candidature il y avait trois autres et après ñu def sorte premier tu xam na les autres certainement se sont rendus compte que jaru ko il y avait même une femme ils sont ils se sont désistés à vingt quinze pour cent on a voté pour moi Ngouda Dione du Parti démocratique sénégalais mais c'est la coalition on a fait la même chose partout à travers les communes ma wax ma terminer à à Sam est-ce que xam nga kan mooy le candidat de la coalition Wallu Sénégal xam nga loolu moo lay won ne presque amul benn coalition bu doxalee noonu xam nga kan mooy euh, le candidat mm-hmm. te xam nga kooku sax presque il venait leur structure parce que il une partie de leur partie qui est dans le pouvoir la LD Debout ku ñuy wax Modou Fall est le candidat de wàllu Sénégal à Sam Notaire. moom lu tax joxe woo exemple ci ville de Dakar entre. non ñoom mais Doudou Wade Doudou Wade Pape Diop li tax Pape Diop génn coalition. attendez mais xam nga. ville de Dakar quand même yow na nga xam ne dëkkuma ville de Dakar sopp sax moo tax. muy wax ci ville de Dakar bokk ci membre comité directeur bu PDS. dama en tant que membre PDS. xam nga cee wax ragalu ma cee wax mais dama la bëgg a wax li xew géejawaay dama la ne géejawaay am nañu un candidat bu nekkoon rek. bu nekkoon représentativité rek kooku du nekk le candidat de wàllu Sénégal à Sam Notaire Modou Fall de la LD Debout est le de wàllu Sénégal à wax ma ci coalition yi kan moo def lu mel noonu te ñun def nañ ko à Guédiawaye léegi le candidat de wàllu Sénégal et de la LD debout. loolu il faut nit ñi xam ko mais ville de Dakar da ngeen imposé ma ñëw non non ma ñëw ville de Dakar xam nga dama la ne. nan la ñuy tànne une candidature une candidature c'est on peut le désigner par euh, solidarité ou par euh, par euh, sentimentalisme mais dama la ne la ville de Dakar aussi mais ñiy désigner le candidat c'est les c'est les militants de base ñoom bu ñu nee ñun sunu candidat ci PDS lay jóge te c'est totalement légitime moi je pense et je le regrette mu naqari ma lool metti ma lool parce que Pape Diop quand même est une valeur et j'aurais aimé que Pape Diop dépasse ces petites kii euh, te maintenir dépassé ko li nga wax Pape Diop dépassé ko attends Doudou n'a pas à dépasser quoi que ce soit Doudou Wade a été choisi Doudou Wade ne peut pas se désigner candidat de la coalition mënu ko parce que Doudou Wade n'est n'est pas le responsable des structures du Parti démocratique sénégalais kon mënta désigner boppam si Doudou Wade est candidat c'est qu'il a été désigné mais maintenant yow doomu wax ne da bëgg ñu désigner Doudou Wade Doudou ne ah non bëgguma mën na ko évidemment kenn mënu ko forcé ne ko yow yaay nekk candidat waaye nag si on le désigne mu nangu ko vraiment warta tax kenn par force dañ may désigner lu ñu nanguwul mooy nga ne par force dañ may désigner bu ñu la désigner xayrun bu ñu désigner woon Pape Diop aussi def may neex. d'accord bu ñu désigner woon Pape Diop def may neex. parce que mérité na ko mais je pense que bu ñu désigner Doudou Wade Pape Diop devait accepter pour vraiment la cohésion. l'efficacité de fonctionnement de la coalition wàllu Sénégal Pape Diop dafa waroon a nangu loolu ndax xam na ni on ne peut pas se forcer, on ne peut pas s'imposer comme candidat dans une formation politique. d'accord ou dans une coalition politique. d'accord jërëjëf euh, Ngouda Dione yow nga bokk ci euh, PDS bokk nekk membre comité directeur nekk candidat wàllu senegal euh, Golf Sud mais yéen wàllu Sénégal Ngouda Dione tey yéen am na ñuy wax ne yéen amu leen ay moyens de campagne moyens yu ngeen demee defi campagne. même su dee am ngeen ko ci ville bi amu leen ay moyens pour dem surtout yeneen communes yi ndax ñooñu ci wàllu Sénégal lañ nekk même bu du tey euh, nekkuñu Dakar nekk nañ ci yeneen communes yoo xamante ni sax ci yeneen région la nekk ñooñu war nañu mën a am financement ci euh, def seen campagne comme ni ko euh, Doudou Wade di amee ñu baree baree bari man si li ma information yi ma am mooy ñoom jotuñu ay financement waaw xam nga kañ dernier sa dernière information kañ la mënuma la kañ la mais loolu mooy. non damay wax rek xam nga loolu am na te euh, la deux deux types réponse laay am ci loolu. Sénégalais yu bëri dañu ne woon mu ne parti démocratique sénégalais da moom waxuma la xaalis mais presque xaalis bi comme ay xob bu garab la ndax bëri du moom la ñuy wax. waaw bu bu xaalis bu bëree comme ay xob bu garab lu tax ngeen ne en même temps amuñu financement ndax amuñu ay moyen non kan ma wax dafa bëri. yéen. yéen journaliste ak ñeneen ñoo yéen ko waxoon di yéen ne lu ñu am ci xaalis xaalis bi yëpp mu ngi ñu dugal ci kaaf yeeg yu kenn xamul yooyu fi la la fekk fi ma fekk. Ah, yéen ah non non mooy détournement yi ñu doon tuumaal PDS. waaw ñu doon tuumaal PDS kon donc daa amut. kon donc lii bu buñ demee ba gis ni ñun am nañu ay difficulté ndax ay moyen pour def campagne ça veut dire ñu doon jiiñ amut. PDS d'ailleurs lu bëri wane nañ liñ ñu doon jiiñ amut ne woon nañu Karim moom moom port DP World DPO du du actuellement dañoo yaatal sax ay ay capacité ci port de Dakar deuxième étape deuxième étape mooy defar port du Ndaay waaw ku ñu ku ñu jiñ sàcc ba pare nan nan lay nan nan la ko état di joxe pour mu defar port kon loolu yéen journalistes yi jaaxal ngeen ma foofu lu tax yëkkatiwu leen loolu waaw ne xanaa du kii la ñu newoon moo Karim Wade dañoo dañoo sàcc léegi nag lu tax état bi jox ko port joxaat ko encore mu defar portu Ndayane du yéen a ko waxoon en tout waxu leen ko waaye yéen a ko jottali yéen journaliste yi état bi ne pooru DP World njéet yow dégg nga ko ma dégg ko ne Karim Wade ko moom moo ko moom wala moomu ko fi ma ne nii yow laay laaj <laughs> déet déet man kay mosuma cee accord yow bokkoon nga certainement wala boo xaw say mbokk c'est-à-dire say say say collègues journalistes ñoo doon jottali ku ne di wax ñu ne DP World Karim Wade ak dem nañ sax ba waxaat xaw ma ay fan Guinée équatoriale ñu dégg gis nga le représentant de l'État bu demoon Guinée équatoriale pour enquête tuuti gars yi tëj ko <laughs> tuuti du ah waaw parce que dañ ne yow dañ ñuy fonto réew mu mel ni sunu bos nga ne Karim Wade moom moom du <laughs> aéroport loolu yabaate la moom tuuti du ñibbisi si léegi léegi financement yi nag loo ci wax financement yi dama la ne le parti démocratique sénégalais nu mu nu mu ko mos de defee toutes les structures du parti à partir de lundi passé il y a de cela trois jours parti démocratique Sénégal noonu la ma sof ren sax dafa teel mais boo laajee réellement ñu xamoon parti démocratique Sénégal c'est en mi campagne la doon joxe financement laaj teel li ma wax mën ñu bëri mën nañ ko firnde mais tey sax ren dañoo gën a teel parce que campagne bi dafa commencé rek deux jours ñu joxe financement. même yeneen communes ba ci xool gox boo mën a laaj commencé tey du am na ñu la waxoon laaj leen. léegi fu ngeen jëlee financement yooyu. laaj boo boo laajee ñeneen ñi fu ñu jëlee financement ma wax leen ñun fu ñu jëlee. non bu dee tey laaj ma da nga may ne waa Benno Bokk Yaakaar fan la ñu jëlee xam nga ñoom ay milliards la ñu yore. non ñoom moom ñu moom dañ leen a dénk alalu réew mi mooy ñiy pasar pasar kon dañ koo sàcc réew mi ñoom. déet waxal mu leer. dañoo sàcc alal réew mi di campagne. wala non xam nga. Benno. <coughs> waaw Bokk Yaakaar. waaw ñoom. Mm. boo xoolee sax suñu. véhicule de fonction yi. yi ñu leen jox moom la ñuy campagne suñuy chauffeur. sunu euh, lépp nga xam leen déserté jël employé yëpp yóbbu leen si campagne bi. ñooñu moom. Hmm. Euh, maanaam waxuma ñoom seen i wax. waaw léegi suñu sunu campagne xam nga man mënu ma laa réellement euh, sunu financement fu mu jóge mais yomb naa deviner. parti démocratique Sénégal day nekk parti boo xam ne nee naa la ñi ko bëgg ñi nga xam ne comme. comme totem la ñu jël parti démocratique Sénégal yi ñu ngi ci kër yi. ñu xaaral rek ma ñëw xaaral ñu ngi ci entreprise dama la bëgg a tontu de façon claire pour won leen ni financement fu mu mën a jóge ñu ngi ci kër yi. ñu ngi ci entreprise yi ñu ngi ci ay gox yu bëri ñu am ay xarit ay am di jàmm en plus maintenant de, de, des capacités propres de grands responsables du Parti démocratique sénégalais qui ont longtemps travaillé ñu am sunu ami dans la coalition tout cela rassemblé a permis à la coalition Wallu Sénégalais Wallu Sénégal de disposer de fonds pour financer en fonction de la stature de la collectivité ñu financer seen campagne xam nga boo jëlee une commune comme Golfe Sud, la plus importante de Guédiawaye et parmi les trois les plus importantes de la région de Dakar na nga ko xam Golfe Sud. Golfe Sud ni koy financer du bokk ak nu ñuy financer une commune rurale sob yi du bokk et c'est logique parce que li ñuy war a def li ñuy xaar xaarul ñooñu. d'accord mais est-ce que Karim Wade dugal na ci loxoom. personnellement loolu mënuma ko wax ndax Karim Wade nekku fi. ndax xam nga yéen tey par exemple tey yéen euh, gisuñu ngeen collecté xaalis. gis ñu ngeen collecté xaalis kon li ma wax kon déglu woo ko dama la ne comme man mii ma nekkoon un un un un directeur d'entreprise xam nga xam naa état lu mu mën bu may jox PDS xaalis da dama koy fësal du ma ko fësal ndax <laughs> moo ko fësalee xam nga li may xaar. d'accord jërëjëf yu mel noonu laa lay junj pour wan la ni ñu mën a dimbale parti démocratique sénégalais kenn xam même ci biir nguur gi. même ñoo xam ne son des responsables APR. participe au financement du parti démocratique sénégalais mën nañ ko. maanaam benn bokk yaakaar dañuy soutenir PDS. E. waxuma le benn bokk yaakaar de. ay individu laa la wax ñoo xam ne dañoo am jàmm ak PDS. E. bo euh, euh, waaw mën nañ gis nga partout ci Sénégal am na ñoo xam ne PDS da leen a saf. d'accord te nu leen safe moo tax. duñ ko fësal duñ ko wone waaye mën nañoo bokk. ci luy financer. parti euh, démocratique léegi Ngouda Dione yow fi nga xam ne mooy Golf Sud. Euh, tey ña nga xam ne ñoo fa nekk maire ba euh, maire sortante ba Aïda Sow euh, Diawara Benno Bokk Yaakaar teg fa Lat Diop nen na Fatoumata ñëw bokk si léegi nen na Fatoumata Tall Lat Diop Aïda Sow Diawara Diawara appareil d'État benn Bokk Yaakaar ak seeni milliards ñooñu tey ñëw song foofu nan ngay def ba gañe <laughs> xam nga ñooñu ñëpp ngay wax muy Aïda Sow Diawara xam na ma maag moom nee naa la ñoo ñoo nekk ndawoon ci mairie bi pendant sept ans xam na li ma mën xam na li ma attan xam na ni dara feesul sama bët ñoom ñëpp ma leen ëpp expérience politique fu ma jaar jaaruñu fa man dama nekk koo xam ne dama dama dama am ñaari yar yaru daara nekkoon ci kër sëriñ yaru tubaab <laughs> mën nañ ko wax mooy jóge ci les foyers socio éducatifs ba université de Dakar amul benn syndicalisme élève ou étudiant ñi nga xam ne ñoo nekk autour de Macky Sall xam nañ ma Boubacar Mbodj ñoom euh, kii l'avocat maître Bathily ñoom Talla Sylla ñun ñoo nekkoon coordination des étudiants de Dakar maître El Hadji Diouf coordination démocratique des étudiants de Dakar non non union démocratique des étudiants de Dakar kon sama jaar-jaar ñooñu xamuñu ci dara donc du ma seen moroom man danaa deful ñooñu moroom ci la capacité politique la capacité de prise en charge du mouvement et de la dynamique sociale ñooñu amu ci kenn ku ma def moroom Lat Diop waxee suñ kooku moom bokkut Lat Diop xam nga lu mu doon mën naa ne ku fonctionnaire yem ci est-ce que dégg nga li ma lay wax te waa Golf si sax moom lañ ko teg ab fonctionnaire jeex na teguñu ko un homme politique parce que dans sa démarche dans son fonctionnement il considère qu'il est trop maladroit et peut-être am na moo bu mu ci dul yokk lu ñuy wax te yow mën nga koo gëstu nga xam loolu la ñuy wax ci moom parce que dafa nekkul koo xam ne mën na nekk un leader politique lu tax non ko am amul formation bi yoru ko kon jàpp nga ne moom fonctionnaire la rek kon nga ne ab fonctionnaire déjà xam nga loolu ma tudd aussi am na lu muy wund ah, ab fonctionnaire warta mën a am xaalis fonctionnaire bu génne milliard buñ ko buñ ko jàpput ñu ñu ñu ngi def par par loolu fonctionnaire warta foo fonctionnaire génnee un million waxuma la ay dix millions yi ñuy génne de un million kii wo war nañ ko woo d'accord léegi euh, xam nga moom euh, fi mu jiite sax dégg naa fan yële détournement LONASE xaw demee noonu. <laughs> waaw léegi yow <laughs> léegi léegi nga dugg ci li may léegi yow bennoo. <laughs> Mhm. xam nga moom bennoo tey euh, ñu bari lañ. Ah. ñooy ñëw est-ce que benn Bokk Yaakaar yéen wàllu Sénégal au niveau de Golfe Sud mm-hmm. yan pexe ak fan nga teg ne man ngeen gañe ak lan ngeen di wax askan yu ba yay leen pour ñu voter leen xam nga ñun nee naa la tout d'abord tout d'abord depuis 1987 boo xoolee boo fàttalikoo en 1987 man ak benn kii ñuy wax ab Mbow mu nekk euh, unité 6 dañu organiser woon une grande marche jóge lycée Limamoulaye jëm Kër Dior kooku c'est c'est mémorable mhm. bu waa Sotrac dañu gënoon dóor ba sëriñ sa sax waxoon nañ ko kon xam nga ñun dañoo yàgg yëngatu ci ñi ñi xam mais waxuma lu tax ngeen non non laa ñëw pour wan leen ni pexe yi pexe yi ñuy def mooy lan mooy loolu am li ñuy yàgg di def dafa tax mu am une base dormante boo xam ne moo nekk ci kër yi lu ñuy njëkk a def mooy dem gis nga boo boo amoon chance te dama bëgg samedi dañu am une grande caravane boo xam ne dañ moom la ñuy def du matin au soir biir Golf Sud dama bëgg nga yónnee au moins kenn nga gis ñun nu ñuy liggéeyee nu ñuy liggéeyee mooy par exemple am na ñoo xam ne bu ñu duggee ci marché alors nii joxe xam nga ñun lu ñuy def boutique par boutique table par table mu wax la lan mooy wàllu Sénégal wax la lu ñu nam mu ci Golf si toog toog laa la wax de nga mooy pose ay question mooy répondre te taye luñ ci dara. mais est ce que nag li ngeen est ce est ce que seen programme ak li ngeen di diggee lépp est ce que seen compétence la est ce que tamit mën ngeen ko def. lu réalisable. moo wax moo wax programme bi mooy lan tout d' abord dama ne une éducation pour mu dox. il faut que dès le début mu bañ a am tiitaange ak tar-tar ci famille yi. xam nga lan moo tax ma ne tiitàng ak tartar gis nga octobre bu jotee famille bu ne yaa ngi ne waaw man nan lay def ba inscrire sama doom ay affaire trois mille cinq cent yi lay laaj wala ay cinq mille même bu nekkul fun la ñun sunu biir programme dañu ne la mairie va prendre en charge les inscriptions au niveau des familles au niveau des écoles toutes non c'est calculé ça ne dépasse même pas dix millions wala quinze millions On va prendre en charge les droits d'inscription pour qu'il n'y ait plus quelqu'un qui attend janvier ou février parce que dafa amagul lu mu inscrire loolu déjà un retard colossal la te boo ko xoolee mu topplante noonu muy handicapé beaucoup d'élèves on va ñun comme que ay ay éducateurs la ñu xam nañ fañ la handicap bi nekk ah, on va éliminer cet handicap ça veut dire que maire yi dootu ñu nekk foofu la payi de xalaat nan laay inscrirer sama doom ah. la mairie va prendre en charge les droits d'inscription waxuñu fourniture fourniture les maires toujours dañ doon aider mais en tout cas ce qui tax ba nit yenn étude da ngay gis élève bu toog ba janvier du mën a jàngi ndax daa amagul inscription de da nga programme ma ñëw benn wax naa la léegi Silicon Valley bi lu ma ca namm fexe ba xam nga boo demee Seattle aux États-Unis Boeing toutes les entreprises yi nga xam ne ñoo yëngu ci microélectronique ak électronique informatique foofu lañ nekk lu mel noonu la ñu bëgg a def Guédiawaye ci lu méngoog suñu dayo ci lu méngoog suñu dayo moom la ñuy def à Golfe Sud la Silicon Valley te namm nañu même bu ñu amul pendant cinq ans ñoo koo xam ne mën na defar ordinateur lépp lu jëm ci informatique en tout cas les nouvelle technologies de l'information et de la communication du dara dootu ko ci réer loolu la ñu nar def Golf Sud après le pôle artisanal dañoo nar a def lii jël luy tolleri luy mécanicien luy menuisier ébéniste parce que ñu bët dañuy jaawale menuisier menuisier ébéniste laa wax ak lépp loo xam ne couture euh, coiffure et cetera ñu def de grands hangars loolu ñoom déjà am na mais dañ fa def ay affaires yu grave yoo xam ne en même temps question environnement bi loolu la ñuy defar def fa ay hangars def fa euh, courant def fa képp koo xam ne yaa ngi yëngutu ci mbirum artisanat foofu nga koy te lépp loo xam ne aussi maire ba soxla na ko ci loo xam ne doomu Golf Sud mën na koo def kenn du ko importer kenn du ko jële ji feneen c'est dans le pôle artisanal nga koy jëlee deux jigéen ñi da ngay gis ñu ne xawma ma de lan di leen jox ay dix mille ay quinze mille ay vingt il y a un nouveau service boo xam ne moom la ñu nar a créer ci Golf Sud ñu koy wax service de l'innovation et de l'investissement nga xam ne c'est un ingénieur financier wala un master financier nga xam ne rôle mooy nag étudier les projets guider les femmes pour que ku ñëw présenter ce projet ñu mun ko defar ba mu jekk le projet comme nuñ koy waxee mu bancable e qui financera ce, euh, ce projet s'il est bancable celui qui financera c'est une nouvelle institution bu ñuy tuddee euh, le crédit municipal D'accord. le crédit municipal prendra en charge l'ensemble de ces projets ma continuer wala jërëjëf jërëjëf waxtu yi mu continuer ci non pour wan la ni ñun kafuñu am programme pour Golf Sud te mooy ñaan les populations de Golf Sud que Ngouda Dione ingénieur électrotechnicien formateur depuis de longues années forme des élèves des étudiants les guides les accompagne pour qu'ils puissent être insérés dans les structures euh, euh, dans les entreprises et autres structures de développement c'est la même chose la bëgg a def Golf Sud àndandoog waa Golf Sud defarandoog waa Golf Sud jëriñu jëriñu ak Sud lenn mairie bi du ko def pour mbiru boppam lu mairie bi def def cee dégo def cee waxtaane terminé ko xam nga nit mën na ñaw mais mu bañ a rafet rôlu mairie bi mooy loo xam ne population yi suscité nañ ko mu gën koo defar ndax moo am nit ñu xarañ pour defar loolu ñu defar ko ngir njëriñu Golf Sud loolu sunu projet sunu programme mi ngi ci Facebook mi ngi partout te samedi bu ñuy def caravane dinañ ko distribuer waa Golf Sud xam ni nekkuñu fi pour kaf nekkuñu fi pour politique du ñu def ay sabar du ñu def ay leneen te xeley Golf Sud yi nga xam ne dañuy dem Sacré-Cœur di luye ji fay cinquante mille wala cent mille pour mën a football loolu it dina jeex les terrains disponible à Golf Sud seront gazonnés pour que les jeunes de Golf Sud mën a football mën a defar seen bopp les les une dernière phrase mooy les ASC les ASC ne seront plus seulement des associations sportives et culturelles mais des associations sportives culturelles de développement wax naa ko keroog bu ma jeunes yi recevoir recevoir ci terrain wu mairie bi dama leen ne yéen bu ñu waree par exemple mbedd mu bëri suuf ñu war ko désensabler yéen am ngeen ay structure ay association vous serez vous serez les maîtres d'ouvrage yéen a koy defar mairie bi peut-être indil leen un conseiller technique pour ngeen désensabler au lieu xaalis boobu di dem feneen te noon lay def noonu lay mel pour tous les projets les ASC seront les maîtres d'ouvrage de beaucoup de projets boo xam ne mairie bi daf koy entamer ah. c'est ça notre orientation jërëjëf euh, Ngodo Dione ñu lay sant di la gërëm merci beaucoup Abdourahmane jërëjëf euh, Ngoda Dione mbokk yi moom la ñu invité woon mu nekk euh, candidat wàllu Sénégal ci Golf Sud ci département bu Guédiawaye euh, li moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou jaawa Dial moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak